d'abord di ñaawlu li nga xam ni moo am comme ni ngeen ko waxee président Ousmane Sonko la ñu seet si woon parce que mi ngi ci clinique bi ñu koy traité bu fekkee fàttaliku ni nanu ni Sénégal la wax Sénégal ñu xam que ci tradition démocratique xam ka ci maturité ci démocratie ñu dem ba tey le leader de l'opposition ñu koy gazé jusqu'à ce que ñu koy évacuer en urgence di ko indi clinique loolu lu day waar la li xew ça pas notre pays et le président Macky Sall moom la ñuy waxal lépp lu xew fii on le tiendra pour responsable il est déjà le responsable de la situation bi nga xam ni moom la réew mi nekkee et yéen ñëpp gis ngeen leader comme d'habitude comme ni ñu ko defee ci suba ba tey ñu ñëw di soutenir le président Ousmane Sonko le président de la conférence des leaders est là le président Habib Sy madame la présidente Aïda Mbodj est là madame Maïmouna Bousso est là le président Cheikh Youm est là le président Cheikh Tidiane Dièye est là le président Mamadou Lamine Dianté est également là tous les autres leaders xam naa boo leen toogee tuuti daa leen gis ñu yegg si pour ñëw soutenir le président parce que depuis ce matin on était ensemble avec lui fële ci palais de justice mhm. ba bi ñu paree war dem defi point de presse au siège ñu bloqué ñu duñ fa dugg mhm. ensuite ñu yëg ni évacué nañ ko en urgence parce que gaz yi ñu ko aspergé moom moo mujj def effet ci santé mhm. donc di ñaan déjà fii mu nekk mu génn fii ci lu mu gën gaawee parce que peuple bi soxla nañ ko mais aussi di wax le président Macky Sall que du xoqatal yi du attaque yi du lenn moo ñuy reculer lu face à notre détermination de défendre les libertés de défendre notre démocratie mhm. parce que Sénégal bi koy nit ñi di teg ci yoon boobu moom nekkagul woon président de la république et mu bëgg que ak mu bañ bis bisa ngi ñëw dootul doon président de la république mhm. donc li ko war mooy li ko desee fii léegi mille vingt-quatre mu xool nu mu amee une sortie honorable au lieu de vouloir se maintenir à la tête du pays et par conséquent di prolonger les pratiques yi ñu ko mos a xameel mooy xool nu muy wutee ay procès pour certains pour les écarter et d'autres pour le parrainage pour les écarter na xam ni yàlla mooy joxe nguur te bu ne jeex na jeex na te sunu constitution également deux mandats la wax mënu ci def leneen lu weesu loolu donc na arrêté attaque yi muy def les leaders de l'opposition attaque yi muy def les leaders de Yewwi attaque yi muy def contre le président Ousmane Sonko donc di ka massaw encore une fois di wax ni on la là à ses côtés et on sera toujours à ses côtés parce que il s'agit de défendre comme ni ko yàgg waxee ñëpp nos liberté et la démocratie moom ku fort la mantalement ku mm. fort la psychologiquement moom xalaatul sax tey boppam mu ngi xalaat xale yi ñu gaañ mhm. ci mbedd mi mu ngi xalaat ñi nga xam ni euh, lor nañu leen mhm. ñooñu la yërëm ñoo ñooñu la bëgg sax ñu seetal leen xool nu ñu def mhm. moom il est fort xam na li muy def xam na ni il est dans un combat pour le Sénégal il est dans un combat pour la démocratie et pour l'état de droit sacrifié na daanaka boppam toujours mu wax ko ci ci ci yeeg message yi pour ce pays ñu sauver ko ñun am nañu lu ñu metti dëcce wax na ko parce que gis nañu ni fii mu nekk waru fi woon nekk te nag wax ji benn rek la mhm. Macky moom la ñu jàpp pour responsable de lii dal Ousmane Sonko te danañ ko topp ba xool fu mu yem parce que li wér mooy am na lu ñu jël asperger ko ko am na loo xam ne pompé nañ ko ko te kenn xamul la na ci nekk te gis nañu ne àddina bi ñaaw ñaawteef yu nekk dictateur yaa ngi koy def pour faagaagal ar lor seeni opposant ci ay poison ñu leen di jox ñu ñu laal ko seen yaram wala ñu dugal ko ci seen ay bakkan lañu ko def nag danañ ko topp pour xam lan la te moom président Macky Sall fii ci réew mi ak bitim réew bu fekkente ni am na lu ñu yëkkati rek laal ko te mu war a lor Ousmane Sonko na xam ni moom mooy nekk responsable te dina ko régler fii avec le peuple sénégalais. na ko xam mu leer bu baax ci boppam. maître Clédor Ciré Ly mi ngeen xam di avocat boo xam ni fu ne def na jaar na fa ci àddina. expérience bu ne def na ko amul taxawaay bu mu musul am ci réew mi lu fi am ci combat ci affaire justice taxaw na ci toujours féete ci côté peuple sénégalais mu ngi tëdd fii ci lal sonn ndax moom malgré son âge ñu dugg infiltrer suñuy force de défense et de sécurité tey ñoo ñu nekk ci sol ay kagul ak ay kenn xamul ñan lañu loolu mooy danger wu réew mi tey ku ci ne bu ngeen gisee mu sol loolu xamuñu kan la ndax lu ne ñu ngi koy def ñoo ñoo ko attaqué moom itam bi mu nekkee ak Sonko mu ngi tëdd fii ci lal bi nekk ci situation bu terrible loolu itam ñuy woo la communauté internationale ak sëriñ si senegal fii nañu xool lii fi xew leader opposition ngi fi tëdd avocat ngi fi tëdd ñu def leen loo xam ne mën na leen lor ci seen dund loolu ñaawlu nañ ko bu fu ñaaw te fi waaye nag président Macky Sall nañ ko wax ni tey ak ëllëg nu mu def dina layoo lii ak waa Sénégal na ko xam parce que mënuñ ko bàyyi mu jàll donc wax ji loolu rek la et fu ñuy daanelee mooy ñu sant encore une fois le peuple sénégalais jeunesse bi wax nañ leen ni résistance nekkatul de droit devoir la résistance devoir la continuer leen mobilisation détermination comme ni ko leader yi amee pour ñu défendre suñu réew